wa usalli wa usallimu ala abdillahi wa rasulihi allazi ma taraka baaban yaalamu fihi xayran ila dallana alayhi wala tarixan yu addi ila charri ila xasarana minhu mbokk yi ginnaaw bañ sante yàlla julli ci seydina muhammad salallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaara ci bés bu tedd bi di ci bés bu tedd bi kenn ku nekk ñu lay jox sa wàccuwaay ci bés bu tedd bi ni mu ci bésu gàmm di juddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam weer wi nga xam ne moom moo di rabiul awal saa yu ñëwee rek jullit ñëpp dañuy bëgg ndax mooy li nga xam ne moom la ñëpp bokk mu di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni ki euh, buñ tollee ci fukki fan yi ak ñaar kenn ku nekk am euh, barab yoo xam ne fa nga koy taxawu ci lan ay azkar ci jàng alquran ci tàggataat sa bopp defaraat say jikkoo moom mooy lan guddig yonent bi sallallahu alayhi wa saa yu delsee rek kenn ku nekk di xool jikko yi nga xam ne mooy jikko yi yàq ci yow nga fexe ko dindi ndax lan moo tax yàlla teg yonent bi sallallahu alayhi wa def ko ne wa innaka la ala xuluqil azim ci jikkoom yu baax yooyu jikkoom yu màgg yooyu jëllale gam daan jëllale jéggale gam daan jéggale ñàkk fayantoogam daan def moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan bokk ak nit ñi lépp lu mu am te am mu bàyyi la ak moom moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax yàlla taggu ko ci jikkoom yu baax yooyu yàlla taggu ko itam ci jikkoom yu rafet yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nabiyuna Muhammad huwa afdalul anbiya il kiram arsalahu llahu li jamiil xalqi bi sariati l islamiya li yubashiril muminina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo yonent bi nga xam ne mooy xaatimul anbiyaa wa imaamil mursalina moom mottali mbooleem yonent yu ñu yónni woon gannaaw ba ñu nekkee 313 yàlla tànn ko ci moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam def ko mu mottali mbooleem kuy yonent rek te yàlla yónni woon la mu mottali yonent yëpp moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te lépp lu yàlla bind rek mi ngi ko bindee ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax euh, mu bind ko moom yonent boobu nag ba yàlla ñëwee daf koo jox li nga xam ne moom moo di chariatul islamiya mooy li nga xam ne képp kuy wuyo ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ci nga war a tënku waaye tënku ci li nga xam ne mooy def ndigali yàlla yi waaye itam bàyyi ay tereem weesuwul loolu kon mu mel ni ki bi mu indee itam daf ko indi ngir di ko bégalee bé képp kuy jullit képp ku ne man kat ab julli laa judd ci ay waajur yu tedd yoo xam ne ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moom la ñuy kon moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, mooy yonent bi nga xam ne yàlla moo ko yónni jox ko li nga xam ne moom moo di diinal islam ngir mu indi ko ci nit ñi waaye nag Muhammad moomu moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mi ngi bàyyeekoo ci baayam ñu ngi ko tuddee Abdullahi. Abdullahi moom mi ngi bàyyeekoo ci ku ñuy wax Abdul Muttalib Abdul Muttalib baayam mi ngi tuddoon Haashim Haashim moomu bàyyeekoo ci kuñ naan Abdul Manaaf Abdul Manaaf moomu mi ngi bokk ci jiiru euh, Makkatal Mukarrama kon Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mën nañ cee déggee ne Makkatal Mukarrama fa la ay baayam euh, euh, soqee ko fa lañ dëkk maamam yi nga xam ne ñoo féete ci wàllu baay ñu ngi dëkk ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Makkatal Mukarrama mooy dëkk bi nga xam ne ku fa taxaw rek yëg ne man ab julli laa dëkk bi nga xam ne fa la ñëpp dem bëgg a dem ngir ziyaara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy dëkk bi nga xam ne mooy defar jikko yi mooy dëkk bi nga xam ne mooy matale jaamu yàlla yi mooy dëkk bi nga xam ne kenn du fa dem di xalaat ak caaxaan mu di makkatal mukarrama mi nga xam ne ku fa dem rek xam ne yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa mooy mottali mboolem jullit te itam am na kiraama yu baree baree bare yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek la ko jox kon yonent boobu nga xam ne mooy yonent bu tedd bi moo fi ñëw ngir indi diina ji nga xam ne diina ji wér la mu di diina al islaam euh, ngir mottale jikko yi nga xam ne moom la fi borom bi subhaanahu wa taala wax ne innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq dafa wàcce yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu mottale jikkoy doomu aadama yi ngir mu defar jikkoy doomu aadama yi waaye nag moom yonent bi sallallahu alayhi wa moom la yàlla wax ne mooy seetu bi nga xam ne moom la ñu tegal ngir ñu ci xool ci lépp loo xam ne rek lu euh, jullit bi war a jëfandikoo la na ko xool ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko jàng ci jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mu mel ne yonent bi nekkatu fi waaye ay jikkoom ba tey ñu ngi fi des ba tey nit ñaa ngi koy xeeñcu ba tey ñu ngi xam jikko jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nan la nekkee woon ci àddina ndax yàlla moo wax ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana yonent bi daal mooy seetu bi nga xam ne moom laa leen tegal ngir ngeen ci xool xool leen ni ngeen di waxee ci jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naka la daan waxee xool leen naka la daan communiquer ak digganteem ak borom bi subhanahu wa taala naka la ko daan defee ci digganteem ak jaam yi moom yonent bi sallallahu alayhi wa nekkoon na koo xam ne ku daan jëllale la nekkoon na koo xam ne ku daan jéggale la nekkoon na koo xam ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku tabe woon la moom yonent bi sallallahu alayhi wa ku daan defar ak la moom yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ku daan jéggale moom yonent bi salallaahu alayhi wa sallam tooñ kenn te ku ko tooñ mu jéggal la kon mu mel ni ki yonent boobu mi ngi bàyyeekoo nag ci wàllu yaayam mi ngi bàyyeekoo ci aminatu aminatu boobu mi ngi bàyyeekoo ci uh, giir goo xam ne ñu ngi bokk ci uh, yesrib moom aminatu uh, ginnaaw ba nga xamee ne itam judd na ci ñaari wayjur yu tedd woyu aminatu bintu wax bin moo nekkoon wayjuram bu jigéen mi ngi bokk nag ci yesrib Yes Rip ci jamono yi moo nekk Medinatu Munawara te mbokk yi xam nga ne ku dem Màkka te demoo Medina rek mu mel ni ki da ngay am loo xam ne day des ci yow ndax Medina mooy dëkk ba nga xam ne dëkk ba yaatal la dëkk ba nga xam ne saa yu fa jullit taxawee rek xam ne taxaw na ci dëkk bi yonent bi sallallahu alayhi wa ndax day am loo xam ne moom lay yëg kon yonent boobu ginnaaw moo mu juddoo ci suñu yaay Aminatu kii ko nàmpal moom yonent bi sallallahu alayhi wa bokk na ci. xalimatu saadiya mu nekkoon jigéen joo xam ne jigéen yu amoon ay jikko yu rafet la jigéen joo xam ne jigéen ju lewatoon la jigéen joo xam ne jigéen ku sàmmoon boppam jigéen gu tënku woon ci li nga xam ne moom moo di jub moom xalimatu saadiya moom waaye nekkoon na koo xam ne itam faqir la woon nekkoon na koo xam ne moom yonent bi moom xalimatu saadiya dafa ñàkkoon avant muy jot ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni keroog ba nga xamee ne sax ci lay jot yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbaama ma nga xam ne moom la wari woon ngir wuti kum nàmpali ngir ñu mën koo fay mu dundalee ak njabootam ma moo nekkoon ca ginnaaw waaye mu mel ni ki keroog ba mu yegsee ci dëkk ba bañ ko joxe Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu teg ko ci kaw mbaam ma rek booba eh, mbaam ma dafa daal di suur noonu la xalimatu Saadiya jógee léppam daal di barkeel moom xalimatu Saadiya këram barkeel dibanteem ak borom këram barkeel ak njabootam barkeel mu mel ni ki jur yokku ndax da sàmm. alalam itam daal di yokku ndax lan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na kër xarimatu euh, saadiya kon mu mel ni ki itam xalimatu saadiya moomu nampal na ko ñaari at waaye nag ñaanaan na waaye juróom ngir yoraat ko yeneen ñetti at muy juróomi at ginnaaw ba nga xamee ne am na juróomi at nag si la ko suñu yaay Aminatu moom mi nga xam ne mooy yaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy jël yóbbu ko ngir mu ziyaare ji ay nijaayam yi nga xam ne ay mbokki baayam nga xam ne ña nga nekkoon ci giir guñ naan bani addi ibnu najaar ba muy dem ci giir googu di bani abdi ibnu najaar ngir ziyaara ji baayam yooyu nga xam ne ay mbokki baayam lañu euh, ginnaaw ba nga xamee ne saydatu aminata mi ngi dellu si yo yóbbu na yonent bi sallallahu alayhi wa ba noppi ànd ak ki nga xam ne moom moo di ummu aymana bi muy dellu si nag ci yoon wi ci la euh, taseek euh, ci la ñëw ba dëkk buñ naan abbuwaa dëkk buñ naan Abouba ci la ko fa ab euh, feebar daal di euh, dab euh, moom Aminatu Bintu wax bi ko feebar dalee ci foofa feebar ba dalee ko fa mm, génnee àddina moom Aminatu léegi nag ki nga xam ne moom moo di Ummu Aymana daal di jël yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy yóbbul maamam juñ naan Abdul Mutalib te Abdul Muttalib ku nekk xam ne histoire ndax mu mel ni ki euh, bokk na ci daana gàdda li nga xam ne moom moo di néew yàlla mi Kaaba ga gis ngeen ne mooy ki nga xam ne moom moo joteloon ak euh, Abraxata ci jamono bi nga xam ne ci la ne woon dafay toj si Kaaba ga moom Abraxata <coughs> Abdul Muttalib mooy ki nga xam ne moo waxoon Abraxata inna lil bayti rabban yahmihi Kaaba gi kat am na borom boo xam ne moo koy aaral boppam kon mu mel ni ki ca la da lay xew yëpp daal di xew ci diggante abrahate abdul mutalib ak mboolem la nga xam ne moom la yàlla yónni woon ngir mu uh, wàcc seen kaw gannaaw ba xam ne nee nañ dañuy toji kaaba ga ndax lan moo tax abrahate neen lan moo tax ñu romb kaabaam gi mu tabax di ko fi romb di dem ziyaare ji kaaba gee ba tax mu bëgg a màbbal kaaba googu waaye mu mel ni ki am na lu ko ca fekk mu di alam tara kayfa faala rabbuka a ashaabil fiil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim fi ababil jaar tarmihim bihi jaarati min sijil fajalahum ka asfin maakuli mu mel ni ki noonu la yàlla yónnee ay njanaaw ñu yor picc ñu yor xeer yoo xam ne ñu ngi ko jëree biir jahannama di leen ko sànni macha allahu kon mu mel ni ki daal li ñu mën a déggee ci guddig yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bari na lool waaye nag li ñu gën a yitteel moom mooy ñu fexe ba defaraat li nga xam ne moom mooy jikko yi gannaaw ba nga xamee ne itam ñu ngi fii tey ci dëkk bu sell ñu ngi fay ci dëkk boo xam ne dañ koo ji ci teraanga ñu ngi ci dëkk boo xam ne dañ koo ji ci ngor ñu ngi ci dëkk boo xam ne dañ ko ji ci topp yàlla ak ragal yàlla dëkk boo xam ne dañ koo jiwee ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullahi salallahu alayhi wa sallam mu di dëkk bi nga xam ne moom moo di dëkk mam alhaaji malik si ma macha allah bu ci fii ci tiwaawan gannaaw ba nga xamee ne ma fatihul bichiri yebal na équipe bu am solo ñëw fii ci tiwaawan àndax yéen ci guddi guddig yonent bi salallahu alayhi wa sallam gannaaw ba nga xamee ne itam def nañ seen burdo bu am solo boobu nga xam ne ñu ngi ko tàmbale woon ci benn fan ba fukki fan ya mu mel ni ki tey ñu ci bés bi nga xam ne nag ci la yonent bi ganee àddina sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni ki ñu jël thème bu am solo nag ren ren moom moo di fexe ba defaraat jikko yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa yoroon ñu defaat ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di jullit ñi waaye rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ñi mu di nag lu am solo ndax dafa mel ni kii jamono fa mu nekkoon ba tey ma nga fa waaye jikko yi si boppam ñoom ñoo yàqu jikko yi si boppam ñoo changé nit ñi changé mu mel ni ki booy xool sax dafa mel ni ki am na ci ñoo xam ne tënkoonu tënkootuñu ci alquran ak sunna ndax lañuy def weesu na sax jëfinu doomu aadama waaye mu mel ni ki dañuy dem sax bay bëgg a def li nga xam ne moom moo di jëfinu bàyyi ma kon war na thème bi nga xam ne moom lañ jël tey kenn ku nekk xoolaat naka nga ci royee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yan mooy nekkoon jikko yonent bi nan la daan jëflantee ak doomu aadama yi moom ci boppam naka la daan dundee nga fexe ba yow loola nga di ko dundee nga fexe ba jikko yooyu nga jikko woo ko ci digganteeg say ñaari waajur waaye digganteeg borom bi subhanahu wa taala waaye digganteeg nit ñi nga xam ne ñoom ñoo wuyoo ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam da ngeen bokk jamono bokk àddina di dundandoo mu mel ni ki kenn ku nekk war a xool jikko yu gën a rafet nga fexe bay dundee noonu kenn ku nekk war a xool jikko yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoroon ba yàlla tagg ko nga jéem a am jikko yooya boole ko ci say jikko ndax lan mën a jëflanteeg borom bi subhaanahu wa taala ngir am ngërëmam àddina ak àllaaxira ndax ku am jikko yu rafet kat am jikko yi nga xam ne moom la yàlla gërëm am jikko yi nga xam ne moom moo lay jàllale jikko yi nga xam ne moom nga yore. ba saa yoo demee sa bés ba nga xam ne moom moo di bésu mujj ba bu ñu peesee say jëf bi ci ndeyjoor bi ëpp bi ci càmmooñ bi te defe naa ne loolu la ñëpp di sàkku kon mu mel ni ki euh, jikko yooyu balaa nga ko am faaw nga xeeñ ci jikko yonent bi salallaahu alayhi wa sallam te moom mooy nekkoon jikko yi nga xam ne dafa tënku woon ci diine lislaam jikko yi nga xam ne tegoon na borom bi subhaanahu wa taala fa mu ko war a teg jikko yi nga xam ne daana ko jëflanteeg digganteem ak jaam ñi moom mooy di leen jéggal waaye itam di jëllale waaye itam fexe ba itam dox mbokk fexe ba itam tënku ci li nga xam ne moom moo di alquran ak summa euh, di def ay ndigal yàlla waaye itam bàyyi ay tereem kon mu mel ni ki daal euh, jikko yooyu ñu ko war a jëfandikoo rek mooy ñi nga xam ne dañoo toll ci àdduna ñi nga xam ne tey dafa mel ni ki dañoo yaakaar ne tey su àddina waaye su asamaan doon wàcc mën nañ koo teeg say ñaar loxo fekk ne loolu lépp mbiri seytaane la seytaane leen di nax di leen moom ba li nga xam ne ni sax moom moo di ndénkaane borom bi subhaanahu wa taala yi nga xam ne joxoon na ko yonent bi kenn ku nekk di seet kenn ku nekk di ko saytu kenn ku nekk jël lislaam ba mu mel ni ki da ngay tànn la nga ca soxla la nga ca soxlawul nga sànni ko kon mu mel ni ki alquran daal mooy li nga xam ne ci lañ war a tënku alquran mooy li nga xam ne ci lañ war a nekk yonent bi dafa ñëwoon ngir mottali jikko yu baax yi yonent bi dafa ñëwoon ngir defaraat li nga xam ne moom moo di jullit ñi nga xam ne yàlla moo leen bind ba pare boole leen ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mu mel ni ki tiitar weesuwul nga ne man ci xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam laa bokk kon fépp foo xam ne rek ëllëg yowmal xiyaam yonent ba taxaw na fa fexeel ba yow nga taxaw foofa te la la fay taxawloo lan mooy caabi ja fa nga xam ne fa la yonent ba nekk dafa am buntu am caabi lan mooy caabi ji mooy jikko yu baax jikko yu rafet jikko yu tedd nga jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te jikko yonent bi sallallahu alayhi wa kenn mënu koo génne ci alxuraan ndax suñu yaay Aïcha alayhi salaam bañ ko laajee kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa daf ne moom moo di alxuraan kon jikko yonent bi sallallahu alayhi wa kenn mënu koo génne ci li nga xam ne moom moo di alxuraan kon nit ngir mu xam boppam nit ngir mu xam fan lay teg tànkam nit ngir mu xam fan lay jëm ak fu jëm lan la fa war a jëriñ lan la fa war a représenté faw mu delluwaat ci li nga xam ne moo di njàngalam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te weesuwul ñu mag ñu baax ñi li ñu doon def weesu wul ñi nga xam ne ñoo ñu fi jiitu woon fakkal ñu yoon wi nga xam ne moom lañu war a jaar mu di yoonu euh, diine lislaam di yoonu njub moom moo di ku mel ni ki Seydi Hadji Malick si ku mel ni ki Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul ak euh, ku mel ni ki euh, tey boo demee ca Kaolack itam gàmm gaa nga fa maam Baye Niass macha Cheikh xalifa mu mel ni ki daal ak mboolem ñoo xam ne rek ay nitu bu baax lañu woon den xencu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mu mel ni ki fexe ba ñoom jikko yooyu yoroon nga yore ko ndax mu mel ni ki yoroon nañu jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax Seydi Hadji Malick Sy tey boo ñëwee ci waawan rek xool ni doomu aadama yi mel ci xencu ko ci nam daan euh, jëflantee ci nam daan doxee ci ay jikkoom ak li nga xam ne moom la téere yi joxe. ak li nga xam ne ñu ngi koy nettali ci Seydi Hadji Malick si te munta jeex Serigne Babacar si noonu waaye itam suñu xarit ba suñu soppe ba mu di euh, ki nga xam ne moom moo di maam Abdou Aziz Sy Dabakh gis ngeen ko mooy ki nga xam ne dem na waaye mu mel ni ki ba tey daf fee des ndax lan saa yu waxee rek bu adduna jaxasoo suñu génnee la nga xam ne moom la daan wax lu yàgg la rek da ngay gis kenn ku nekk daal di dalaat dajaat euh, daal di dalaat te mu mel ni ki mooy ki nga xam ne dafa nekk ci xolu jullit yëpp. kenn mënta wax ne maam Abdou Aziz Sy Dabakh euh, mu mel ni kii di xàjjale murid la wala tijaan la wala laayeen la dafa am maanaam cofeel goo xam ne dafa nekkoon ci digganteem ak nit ñi te lool li ko waraloon ci diggante maam Abdou Aziz Sy rek moom mooy jikko yu baax yi nga xam ne moom la yore woon. jikko yu baax yi nga xam ne moom la daan wax nit ñi ngir ñu jikko woo ko jikko yu rafet yi nga xam ne moom la daan dénk doomu aadama yi kon mu mel ni ki moom it yal na yàlla yokk leeram Serigne Babacar Sy noonu. mu mel ni ki euh, képp koo xam ne daal yaa nga fii ci Tiwaawan rek am na loo xam ne def nga ko fi te itam ba léegi nit ñaa ngi fi di leen xeencu kon mu mel ni ki équipe ma faatihul Bichri itam kenn ku nekk ndeysaan yaa nga ca euh, barab ya nga xam ne moom lañ la yabal euh, di joxe message yu am solo ndax mu mel ni ki tey boo demee njaaram ci mu mubaaraka ñoom it gàmm gu mag la ñuy def foofu ci kër gu mag fa nga xam ne Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul moo ko taamuloon boppam waaye mu mel ni ki boo demee ca Touba itam ndeysaan euh, foo romb rek yaa ngi dégg ñu tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan boo demee itam ca Kaolack naka noonu euh, euh, nit ñaa nga fa di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu lépp li ko waral rek moom moo di fexe ba xeeñcu li nga xam ne moom moo di jikko yonent bi sallallahu alayhi wa yu baax yi ngir li nga xam ne moom moo di guddeem gu màgg gi guddeem gu tedd gi guddi gi nga xam ne loo ci def rek yàlla bindal la ay tiyaaba mu mel ni que moom yonent bi sallallahu alayhi wa noonu la nit ña nekkee foofa euh, di xencu li nga xam ne moom moo di yonent bi sallallahu alayhi ci juddoom bu tedd bi juddoom bu màgg bi juddoom bi nga xam ne bam ba nga xamee ne sosu mu moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la seytaane ñàkk jàmm la seytaane yuuxu la seytaane tiit Seydi Hadji si wax na ko si xilaasu zahab mu mel ni ki si la seytaane commencé indi li nga xam ne moom moo di ay njabootam wax leen ne yonent bi sosu kon mu mel ni ki soo demee ci xilaasu zahab Seydi Hadji Malick Sy mi way wax ne lay arubati xalla durrun fii rajabin summal munaadi yunaadi musmi al fahimi tanabbahu anna nuural xatmi laylakum xadda xalla fii xiimatin min ataharil xiyami ana atiru baxiru xayral buxuuri wa afrishu sajaadaati takriman alal xusami mu mel ni ki noonu la ko toppee toppee ko moom Seydi ba mu mel ni kii mu daal di jeex ci mbindam yu am solo yooyu nga xam ne da cee tagg yonent bi sallallahu alayhi wa ba ci seytaane di yuuxu mu mel ni que da ko tagg ci ju guddi gi nga xam ne sosu mu mel ni que am na lu jugoon doon yuuxu naan tanabbahu anna nuural xatmi laylakum xadda la fii xiimati min atxalil xiyam yeewu leen jóg leen lu màgg sosu na teraanga àdduna sosu na teraanga yi àllaaxira ki war a defar jikko yi sosu moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jug leen ngeen tuur yi jug leen ngeen tudd yàlla jug leen ngeen bëgg jug leen ngeen kontaan ndax jug nañ ci lëmbel seytaane waaye ñi nga jëm ci lan borom bi subhaanahu wa taala ñi nga jëm ci lan yoonu jub ñi nga jëm ci lan ay jikko yu màgg ñi nga jëm ci lan ay teraanga ñi nga jëm ci lan ci li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëggal moom moo di aljana ndax yonent bi sallallahu Euh, buggul benn xeetam boo xam ne rek bokk nga ci moom dugg fa nga xam ne moom moo di jahannama itam yàlla nañ ci yàlla musal kon mu mel ni ko ni ko Seydi Hadji Malick Sy bindee ci xilaasu zahab noonu la ko maam Cheikh Ahmad Bamba bindee noonu la ko keneen keneen bindee te itam taxut jikkoom yooyu mu daal di jeex taxut jikkoom yooyu ñu matale ko kon daal nañ jàpp na yonent bi sallallahu alayhi wa moom moo di alquran nañ jàpp na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq dafa ñëw ngir defar jukko yi nga xam ne ñoom ñoo fi baax mu mottali leen gën leen a baaxal moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mu mel ni ki ñu ngi sant mbokk yi nga xam ne tey ñu ngi ci télévision Mafatihul Bichri waaye raw na euh, euh, rawatina ka nga xam ne ma nga fale tey ci régie ba ba saa su nekk kenn ku nekk la nga boo ko yónnee nit ñi mën koo seetaan mu di tontoo ma jama moom mi nga xam ne soppa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la kon mu mel ni ki mbokk yi amuñ seen fay yal na yàlla fay leen yal na yàlla teral leen ni ngeen télé télévision ma faatuwul Bichri te teral télévision ma faatuwul Bichri weesuwul ngeen koy seetaan ba saa su nekk xew-xew bu ñëw rek ngeen ànd ci ak ñun maanaam ci ay émission yi ci xew-xew ndeysaan macha allah bu ñu sañoon kenn ku nekk ñu tudd sa tur waaye sëriñ Muntaxa Ndaw it ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax ñu ngi koy ziyaara bu baax a baax ci guddi gu tedd guddi gu yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ndax saa yu ñu jugee rek mu jug ànd ak ñun moom xam na li may wax yal na yàlla fay ko yal na yàlla teral ko ak kooleem koo xam ne rek yaa ngi foofu ci New York sëñ Xaadim Bousso ñu ngi koy ziyaara bu baax a baax waaye itam di jaale bu baax a baax euh, ki nga xam ne moom it ma ngi ñuy seetaanee ca Italie saa su nekk ndeysaan mu ngi ñuy seetaan mu di Fatima Kebe Sarr di ko jaale waaye juróom bu góor bi nga xam ne moo génn àdduna mu di Serigne Sarr ñu ngi koy euh, ñaanal borom bi subhaanahu wa taala yal na yàlla yërëm ko ci barke guddi gi nga xam ne moo di guddi gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax dëgg yàlla suñu sañoon kenn ku nekk ñu jaar ci tudd la euh, wax dëgg yàlla kon mu mel ni ki ñu ngi sant ñëpp ñu ngi jaajëfal ñëpp gannaaw ba nga xamee ne jógee nañ ci barab ya nga xam ne fa lañ nekk ñëw fii ci Tiwaawan ànd ak yéen ci ziyaar yi ànd ak yéen itam ci li nga xam ne moom moo di euh, interview yu am solo yi ànd ak yéen itam ci plateau yi ànd ak yéen ci li nga xam ne moo di micro territoire yi ànd ak yéen ci li nga xam ne moom moo di euh, yu am solo yi nga xam ne muy cérémonie bi mu di son lumière bi ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne xew na fii ci waawan macha allah ma ànd ci ak soxna Yacine Diouf ànd ci itam sëriñ Xaadim Guèye sëriñ Xaadim yal na yàlla jàppale la yal na yàlla taxawu la ndax wax dëgg yàlla aw ma sa fay man mi ànd ak yow rawatina télévision ma faatuhul Bichir wax dëgg yàlla du sonn du taay yi sëriñ Xaadim yal yàlla fay la. du sonn du tàyyi saa su nekk mi ngi ànd ak ñun di ñu defal di gën a teg ci yoonu jub du ñu gën a liggéeyloo ndax lan bëgg-bëgg gi nga xam ne am na ko ci télévision ma faatihul bisiri ñu ngi lay ñaanal lépp loo xam ne bëgg nga ko ci sa xol yal na la ko yàlla defal ci barke guddi gi ci barke guddik Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla barkeel soxna si yal na yàlla may leen njaboot goo xam ne gu barkeel la kon mu mel ni ki noonu la ñuy àndeek équipe yi nga xam ne itam ñi ngi ci bitti réew mi équipe yi nga xam ne ñi ngi ci biir réew mi buñ sañoon kenn ku nekk ñu tudd sa tur kenn ku nekk ma nga ca fam nekk di def lu am solo kon yàlla na yàlla fay leen ñi ci Italie ñi ci Brésil ñi ci Angleterre euh, ñi ci Allemagne wax dëgg yàlla euh, ñu ngi ñaanal itam ñi nga xam ne ñoo ngi fële ci Amérique yal yàlla fay leen yal na yàlla teral leen kon sëñ Xaadim loolu lañu àndoon ak yéen ci li nga xam ne moom mooy jotaayu gàmm bi nga xam ne amal nañ leen ko di gën a ñaaxaar rek mbokki taalibe yi ñu bàyyiwaat xel ci jikko yu baax yi ndax àdduna si mu mel ni kii am na ci jikko yoo xam ne faw ñu defaruwaat te ki leen mën a defar rek moom mooy seen bopp faw ñu volontaire defar seen i jikko tënkuwaat ci alquran ak sunna ngir ñu bàyyi iñaanante gi bàyyi soxorante gi bàyyi rayante gi bàyyi ñëg bàyyi itam rànkiñe gi nga xam ne moom la ñu nekkee kenn ku nekk yéene sa morom jàmm lu waay am yéene ko ko lu waay am yéene ko ko lépp loo am fexeel ba bokk ko ak doomu aadama yi te lu a waay amit yéene loo am jox leen ca ki bañ dee ko gën a bëgg ki la bëggit fexeel ba gën a bëgganteeg moom ndax lan sa digganteeg borom bi subhanahu wa taala lu mat a sàmm la kon yàlla na yàlla fay leen yal na yàlla teral leen kon xam naa dañ leen di jox digg daje ci yeneen jotaay yi nga xam ne ñu ngi ci ñëw ak yéen ba incha allahu rabbi guddi gi jeex kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu عاشاكم الدار أن يلفى نزيلكم يحتاج للغير جود يا من